noonu ñu jàll dex ga ba ter ci diiwaanu waa seresa bi yeesu génnee gaal gi nit ku rab jàpp jóge ca sëg ya daldi ñëw kar ko kooku nag ca sëg ya la dëkk te kenn mënu koo yeew du ak càlla la sax ndaxte ay yoon yu bari jëngoon nañu ko te yeew ko ak ay càlla la waaye waa ji daldi dagg càlla yi te damm jëng yi ba kenn amul woon kàttanu téye ko guddi ak bëccëg ma nga woon ca sëg ya ak ca tund ya di yuuxu te jam yaramam ak ay xeer bi mu gisee yeesu fu sori nag mu daldi dawsi sukk fa kanamam di xaacu naan yow yeesu doomi yàlla aji kawe ji loo may fexeel ci turu yàlla bu ma mbugal ndaxte yeesu newoon na ko yow rab wu bon wi génnal ci nit ki noonu yéesu laaj ko noo tudd mu tontu ko coggal laa tudd ndaxte ñu bari lanu muy ñaan yéesu lool ngir mu bañ leen a dàq ci réew ma fekk amoon na fa ci tund wa géttu mbaam xuux yu bari yuy for rab ya ñaan yeesu jox ñu ndigal ñu dugg mbaam xuux ya mu may leen ko noonu rab ya génn nit ka dugg mbaam xuux ya ñu daldi bartalu daanu ca dex ga lab fa mbaam xuux ya nag matoon nañu ñaari junni noonu sàmm ya daw ca dëkk ba ak ca àll ba nettali ji mbir mi ba nit ñi ñëw seetli li xew ñu ñëw nag ci yéesu gis ka rab ya jàppoon toog sol ay yéere te ànd ak sagoom ñu daldi ragal ña fekke woon mbir ma nag nettali leen mbirum nit ka ak mbaam xuux ya ci kaw loolu ñu daldi ñaan yéesu mu sori seen réew bi yeesu di dugg ci gaal gi ki rab ya jàppoon ñaan yeesu ngir ànd ak moom waaye yeesu mayu ko ko mu ne ko ñibbil ci say mbokk nettali leen ni la borom bi yërëme ba defal la lii lépp noonu waa ji dem ci diwaanu fukki dëkk yi daldi fa yégle la ko yéesu defal ba ñépp waaru noonu yéesu jàllaat dex ga taxaw ca tefes ga te nit ñu bari dajaloo wër ko kenn ci njiitu jàngu ba nag tudd yayrus ñëw ci moom naka la gis yéesu mu daanu ci tànkam di ko saraxu lu bari naan sama doom ju jigéen mi ngi bëgg a faatu kaay teg ko loxo ngir mu wér dund noonu yeesu ànd ak moom bi muy dem mbooloo mu réy topp ko di ko tànc amoon na fa nag jigéen ju doon xëpp deret diirub fukki at ak ñaar sonnoon na lool ci loxoy fajkat yu bari sànq ci alalam jépp te jëlewu ci genn tan waaye faf wopp ja yokku noonu mu déggoon turu yeesu ne ci boppam su ma laalee ay yéreem rekk dinaa wér mu jaxasoo ak mbooloo mi nag doxe ko ginnaaw laal mbubbam ci saa si deret ji taxaw mu yëg ci yaramam ne jàngoroom deñ na yéesu yëg ci saa si ne doole génn na ci moom mu wëlbatiku nag ne mbooloo mi ana laal sama yére ay taalibeem tontu ko xanaa gisuloo mbooloo mi lay wër ngay laaj ku ma laal waaye Yeesu di xool li ko wër ngir gis ki ko def noonu jigéen ja ñëw daanu ci tànkam wax ko dëgg gépp mu tiit bay lox ndaxte xam na li xewoon ci yaramam yéesu ne ko soxna si sa ngëm faj na la demal ci jàmm te ne sa jàngoro wàcc bi yeesu di wax nag am na ku jóge ca kër njiit la mu ñëw naan sa doom faatu na matatul nuy sonal kilifa gi waaye yeesu jàppul wax jooju mu ne njiit la gëmal rekk te bañ a tiit noonu yéesu dem ànd ak piyeer saak ak yowaane rekk ndaxte mayul keneen mu ànd ak moom naka lañu ñëw ci kër njiit li yéesu dégg coow li ñii di jooy ñii di yuuxu mu dugg ne leen lu ngeen di soow tey jooy janq bi deewul day nelaw rekk waaye ñu di ko ñaawal noonu Yeesu génne ñépp woo bàyyi janq bi ak yaay ji ak ñi mu àndal dugg fa janq bi nekk mu jàpp loxoom ne ko talita kuumi lii tekki janq bi maa ngi la koy wax jógal ca saa sa janq bi jóg daldi dox ndaxte amoon na fukki at ak ñaar ñépp daldi waaru ba ni jomm ci kaw loolu yéesu dénk leen bu wóor ñu bañ koo siiwal teg ca naa may leen janq bi mu lekk